Malick Gakou waaw waaw Malick Gakou di nga xam ne opposition bi ñoom boo leen wooy benn yoon ñu jël waxal boo di nga xam ne ñoom c'est des gens yoo xam ne moom laay woo mu ngi nii mu ngi nii Malick Gakou xaar mu ngi nii je l'appelle ma xool ba xam dina jël bu nekkee en ligne gis nga ma ne déglu nga déglu rek déglu nekkul en ligne nga woo ko appel normal président Malick Gakou waaw président Malick Gakou waaw dama nekk en direct MK TV on parlait beaucoup de choses léegi euh, bi ñuy waxtaan ci affaire opposition bi moom ki nekk ci à côté woo benn responsable jëlul ma ne ko man dinaa woo koo xam ne benn yoon laa koy woo dina décroché te bi ma ko waxee yàlla suturaal na ma ma woo nga décroché président Malick Gakou ñu ngi lay remercier ci initiative bi nga xam ne def nga ko démb ci journal bés bi président waaw mais xam nga man Sénégal yi laa yow xam nga ni man dama jege askanu Sénégal mm-hmm. te loolu jotewul ak politique dara je crois Sénégal fii ñëpp xam nañ ne ñi ko jege noonu parce ci jàppale xale yu ndaw Sénégal ci sport ci làmb ci football ci culture ci art jàppale jigéen ñi ci santé bi jàppale nit ñi ci social bi ci wàllu loolu kenn naataable wul ne man jigéen na askanu Sénégal lii muy wut nag wutalu ma ko sama bopp mooy nekk président du Sénégal parce que bu dee élection présidentielle rendez-vous nit ak dëkkam la man wutuma rendez dama nekk dama am rendez bu pare liggéey Sénégal ba pare bi loolu moo tax ma taxaw yëkkat sama président de l'Assemblée Sénégal ba pare am ñu koo xam ne nii wutale moo gën a jege askan bi ci loolu moo tax ba mooy rek mooy jot. mais président Malick Gakou dañu gis ne fan yëpp si sa biir déclaration foo taxaw yaa ngi naan normalement Ousmane Sonko dafa war a bokk ñëpp di rafetlu sa yéene bi nga xam ne te yow da nga bëgg moom mu bëgg yow nga naan dafa war a bokk muy wane ne que yow nit nga boo xam ne tu es entière amoo benn xarma yàlla ak benn candidat boo xam ne mu ngi ci wujje politique bi ñëpp di ko rafetlu foo génn sorti rek yaa ngi naan Ousmane Sonko dafa war a bokk loolu am ñu bëri ñu koy rafetlu. xam nga d' abord d' abord xam nga d' abord balaa politique Ousmane Sonko dafa nekk sama rakk. Mhm. ça fait huit ans ñuy ànd man ak moom. Mhm. dañuy ànd kenn xamu ko woon en tout cas xamewuñ ko ni ñu ko xamee nii. Mhm. ma ciy sant yàlla parce que boo amee rek rafetlu ko parce que yàlla mooy joxe yàlla mooy fal yàlla mooy may. waaye nag euh, ñi xam ne moom moo ko dab neexuñ moo tax dañuy kaw mos yàgg a xeex pour que mu génn ci lii mu nekk nii dellu këram bokk ci élection yi xam euh, nga Kouthia dafa am loo xam moo war am nit ñi ko. mooy lan président yàlla moo koy fal ak sénégalais yi euh, te jii président Sénégal le vingt cinq février bu ñu voté ba pare ci ngoon nga la xam kat moo gañ élection. Mhm. kan moo koy fekkee ak ku koy dal ak ku koy gajee loolu yàlla rek moo ko xam. yàlla xam ko waaye nag li ci xam mooy ñun dañoo bokk Yewwi Askan Wi bokk coalition ba pare raxi doole am diggante yoo xam ne nii eh, yéen a ngi jàmm ba pare bëggante nañ jàmm ni xam naa ne eh, moom it wax dëgg yàlla mën naa seede ci moom ne ku bëgg réew mi la te xam naa ne aussi ñoo ay valeur ci loolu loolu moo tax day ñu nekk xarit kon nag bu ko lii dagee eh, ñu bëgg a élection yi sans moom ñun d'accord ci. te bu ñuy xeela fii ak ay fan daañu jël initiative yu gën a mag yoo xam ne ñi ne war a gën a dëgmal ne ñun kat Ousmane Sonko moom ni ñu mën a def dañ ko war boole ci élection yi ni ñu mën di def dañ ko boole ci élection yi du defee Sénégal yi mën bu leen neex je crois que loolu mooy yoon te loolu mooy am incha allah président Malick Gakou ci fan yi ban ban ban ban dëkk nga nar a dëbbal euh, pour pour dem fa defi euh, euh, sa sa sa sa tournée boo jógee fi nga jógee woon. waaw maa ngi maa ngi dem département de Thiès ngi dem. Tamba Kolda Ziguinchor Sédhiou Kédougou et cetera donc mën na jeexal journée nationale boo def xam nga ne eh, allo oh non connexion bi la xam naa dafa nekk ci oh. eh, def naa Thiès mhm. léegi nag maa ngi waaj a dem eh, département de Thiès moom de Zawal ak département de Thiawal te après bu neexee semaine prochaine ma jekk ma jekk li sama tournée bi may def ci région yi nga xam ne ñoom mooy nekk région du sud du pays Ziguinchor Sédhiou Kolda Tamba ak Kédougou. yal na la yàlla defal yoonu jàmm may la ndam ci li ngay wutu li ngay wut tamit yal na la ko yàlla may di président modèle président boo xam ne nekk président conseil régional bu Dakar nekk tamit ministre am expérience nekk tamit euh, ci Moustapha Niasse jege ko loolu am expérience politique ministre bu démissionné ministre bu démissionné bu démissionné xam nga man ku bu doon Euh, ma nekk naa euh, directeur de cabinet ci dëkk bi nekk naa ministre nekk naa conseil spécial nekk naa président région nekk naa ministre waaye man benn mètre carré Sénégal bu sama ko am jomb naa sax man di tiimu keesu Sénégal di ko lekk xale Sénégal di sonn jigéen di sonn mag di sonn man musuma sàcc alalu réew mi musuma lekk alalu réew mi musuma am benn avantage benn avantage ba ci passeport diplomatique soxla ma ko ci réew mi li ma soxla daal mooy liggéeyal Sénégal. Sénégalais yi te ñëpp xam nañ ne liggéeykat laa te lépp lu ma am dimbali naa ko Sénégal yi Sénégal yi. waaw mais mais président li ma lay seedal mooy yow danga dem dëkk biir waay tabax fa kër dëkk seen bi dëkk ci seen ñoom di fa yeewoo di fa dem tous les week-ends di nekk ak ñoom vendredi samedi dimanche dawuloo puusoo dawoo dem dëkk yeneen zone yi nga xam ne pour ñu gis la rek day am problème loolu mooy wane ne yow vraiment nit nga koo xam ne tu es un nit de proximité avec les populations rawatina fi ne fa nga dëkk di Géejawaay dem tabax fa kër dawoo kenn tegoo fa garnier bu ñàkk yow nit ku exemplaire nga président. ma ne xam ku tudd Guédiawaye te Malick Gakou lan moo tax. waaw parce que euh, euh, euh, proximité bi la. damaa jëriñ waa dama jëriñ askanu Guédiawaye te li muy jëriñ askanu Guédiawaye sama ñax la sàcc mu bëri. man sàcc mu alalu réew mi dama liggéeyal Sénégal. Mhm. jëriñ Sénégal bëgg a jëriñ naat Sénégal moo tax lu bëgg a nekk président. Mhm. baax na jërëjëf. jërëjëf président. sagal nga ma suturaal nga ma parce que euh, waa ji da doon woo benn benn benn responsable APR depuis ce matin mu koy woo jotu ko ma ne ko man su ma wooyee sama sëriñ sama sëriñ daf may décroché yal yàlla defal jàmm gàkku sa sa eh, bàkkal ma ko kii kii kii gàkku la sant mi je gàkku jogomaay mbaar gàkku ma jogomaay mi je ma ca gaal nga na ma ca pëleen jege ñeme far ba jaxaw maara ngi ci njaay mi jeg mi je ba fu ma taayee bàyyi kon kii gàkku la sant te gàkku gàggul fenn président kontaan naa yàlla na yàlla defal jàmm waaye nii la léegi eh léegi woo léegi woo leen Macky <laughs> woo leen Macky eh eh eh wool Marème Faye eh eh, eh eh eh woo leen dana no dana no woo leen woo leen candidat lañ woo leen <laughs> yow Ousmane nga xam ne woo wool yow kooku dana bi <laughs> man candidat un homme intègre responsable bu nekkoon ministre woo leen wooleet man gisuma koo xam ne du ko bàkkoo mais gisuma personnalité boo xam ne nekk nga ci réew mi ma yow wala benn yoon buy sonal occupé da doo ma jël woo leen dama ne woo leen woo leen muy bugaan su ma léegi day jël muy Sonko fa mu nekk sax mun naa koo léegi nii nii nii nii nii mu jël nii ah. nii nii wàññi ko wàññi ko nag ëpp na buñ la may lépp na nga jël lépp non dama ne mun naa ko woo léegi mu jël woo ko mu jël léegi mu jël yow bàyyi ma waay léegi nii mu jël dama dama ne mun naa ko woo léegi mu jël demande mun naa ko woo léegi mu jël léegi woo ko may yow woote leen seen waajooju woo leen seen waajooju woo leen seen waajooju waaye yow dama ne dama ne kan Ousmane Noël Dieng bi yow ko weddil kilifaam mu mu doon parce que dañ koo fa la poste mais kii dafa am ay ambition présidentielle kii dafa am ay ambition présidentielle dama ne yéen ñaar ñii. Ah, su ma nangoo sax toog ak si plateau bi xëy na dafa am nu mu demee. xëy na dafa am nu mu demee. non non non dafa xëy na dafa am demee kii yàgg na taxaw naan bàyyi faalu Macky Sall te gis Macky fii la ma topp moom. naan ma dimbali mi ngir yàlla mu ah, dëgg fii la fii la ma yàlla mu am numéro ma def fay. ngir yàlla yonent bi mu ngi ne mus koo gis musu dóor ko sànni nañ ko fa ay xeer yuuxoo nañ ko dem na benn ngénte ñoon ko wuu bàyyi faalu Macky Sall ba keroog bu muy génn ci ngénte la mu waroon ndaw te la dañ këf mu ngi nii te mu am dara munoo woo ma dem ba mu jël woo kenn ku nekk après mu jël gis nga ni booy sol si dara day fekk ñooñu son ceew waaw voilà la woowee na la allo compal la nga jël de ah mais bien sûr ah moom ah, ma la buñ la <laughs>